ci yeewu culture bi tey euh, tu vas non seulement nous parler de livres agenda culturel mais aussi euh, da nga fi am benn invité boo xamante ne tàmm nañ di ko recevoir fii ci yeewu leen muy Moustapha Naam di préparer benn festival euh, Jal Jalowaali ah noonu la tudd di di di ñu bi bi mooy deuxième édition bi nga xamante ne ñoom ñi ngi koy organiser ma bàyyi la nga dalal sa invité waaw comme ni nga ko waxee rek bijou Euh, bonjour Moustapha. ñu ngi bu baax. waaw donc Moustapha dafa ñëw tey ngir waxtaan ci xew-xew bi nga xamante ne moom la ñuy waajal mu dale ko fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru août jàpp fukki fan ak juróom-ñeent du 17 au 19 août. Mhm. donc euh, voilà mu nekk festival boo xamante ne dafa bëgg defe naa fësal li nga xamante ne mooy lépp luy way luy euh, aada luy. muy wàllum peinture wàllum euh, artisanal lépp loo xamante ne daal euh, foofu ña fa nekk ñu ngi fay ñu ngi koy ñu ngi fay yëngu ci wàllum aada nga bëgg ko fësal euh, tey nag nga nar a jublu si ñaareeli édition bi ñu buggoon rek nga wax ñu mbir mi naka la nar a tëddee mu nekk waaw en fait Diallo Wally festival de Dagana da di événement boo xamante ni dama ko initié ak suma ay sumay frères et, e ami amis euh, qui sont originaires de cette localité maanaam muy Waalo e ñu créer festival boobu muy bii nag mooy nekk deuxième édition bi Euh, festival bi liñ ci jublu mooy boo xoolee Dagana euh, zone la boo xamante ni euh, nit ñi dañuy bu ñu waalo waalo rek dañuy jàpp ni wolof yi ñooy ñooy ñooy waalo waalo mais waalo waalo boo demee di nga gis am na pël yi ñi ngi fa xeet yaa ngi fa mm-hmm. naar yi ñi nga fa bambaado yi ñu nga fa bare na xeet yu fa nekk yoo xamante ni il faut que ñu ñu fësal lu mel noonu et puis xamal nit ñi que ni waalo c'est une zone ci qui a une place maanaam maanaam cër bi mu am ci culture sénégalaise rëy na rëy boo xamante ni man dama tu dama xalaat ne euh, dañ ko dañ ko euh, valoriser wul mhm. et euh, c'est aussi l'occasion que mu nekk une rencontre un rendez-vous boo xamante ni les filles et de de Diwaalo se disent que date bi bu jotee rek. nous tous nous nous trouvons là-bas voilà mhm. dajewaat Waalo. Mhm. c'est l'occasion aussi d'inviter d'autres artistes ça va être noonu lay noonu la nar a demee mm-hmm. euh, ni Blues du Fleuve amee festival mm-hmm. jazz de Saint-Louis am noonu la ñu mën a valoriser le waalo nga xamante ni euh, macha allah am na culture c'est vrai que ak euh, ñi nga xamante ne ñoom nga lim ñëpp ñu nekk fa richesse culturelle lay indi ndaxte ku ci nekk da ngay indi sa culture bopp daal di koy teg mais naka ngeen programmer pour mën a fesal culture yooyu yëpp nekk biir waalo waaw xam nga affaire bi dafay nekk ci ci ñetti fan voilà premier jour bi dafa nekk hip hopeurs yi xam nga slam hip hop. dafa commencé am doole euh, un peu partout à travers le monde donc ñooñu doo ñëw rek naan leen première partie à un moment donné da nga leen jox seen bis. mais deuxième jour bi mooy euh, mooy jour bi spécial parce que euh, ethnie yëpp. ku ci nekk da ngay ñëw ñëw sur la scène. wane sa aada ak sa cosaan mhm. bu ko defee nit ñi xam que ni lii xale yi parce que léegi euh, avec l'internet les gens ne pensent que qu'à ce que qu'on voit de de mais mhm. euh, am nañu suñu aada ak suñu cosaan mhm. et puis et puis euh, dañu naan dañu naan suñu maam yi ay ceddo la ñu woon on pense au côté négatif mais ceddo c'était des valeurs ceddo beneen am yaayu daal am na facette yu bare yuñ ci mën a wane te jour boobu mooy jour faaru festival bi. Mhm. après mais euh, uh-huh. yaa ngi wax comme par exemple nara yëg ci podium beeg yooyu ay artistes yu bare yu ñu produit ñu nara produire foofu di ngeen jël ñoo xamante ne peut-être fii nañu nekk ñu ñu siiw. Mhm. mais est-ce que am na foofu tamit ay xale yoo xamante ne fa ñu nekk foofu nañu nekk ñu nar leen fa fësal su boobaa. pour ñu ràññee waaw mais euh, xam nga dëkk boo fa ñëwee. di mhm. indi di indi indi ay doxandeem chaque fois ay artistes célèbres neex na. mais euh, y a ah, mais am na ay ay ay artistes yu fa nekk sur place il faut ñu valoriser leen ñu gis seen bopp benn moment boo moytu dañuy frustré wu moo tax chaque fois Euh, dañ leen di ñoom dañuy dañuy sax am contact par exemple aujourd'hui ah. c'est Yoro Ndiaye mooy nekk parrain wu festival bi il va se déplacer avec son groupe et tout mais il va être au contact avec les des, des artistes locaux ñi nekk sur place donc ay ay boo mooy Khalifa Mbodj il est de Mbilor il va il va être sur place pour l'eau il va jouer donc ñooñu ñëpp foofu lañ bokk en plus de de de ñun ñi nga xamante ni euh, yàlla may nañu ñuy jouer un peu partout donc ce contact là dafa am solo man dama gisoon ne même ñiy yëngu ci wàllum artisanat yooyu am nañ ci pàcc ci festival yooyu man question bu am solo la parce que deuxième jour bi du du activité yi du guddi kese. Hmm. parce que dafa am benn foofu dafa am ay musée. am na benn musée boo xamante ni bu am solo boo xamante je pense que tout le Sénégal war na xam mhm. muy musée Fudd nga xamante moi je dis que kooku c'est le savant du Waalo il s'appelle Adi Aydara c'est c'est le père de tout le monde euh, mhm. là-bas tout le monde l'aime et il reçoit les gens ci biir Fudd bi foofu la exposition yi ngay wax di am mhm. exposition photo ak œuvre yi nga xamante yo yooyu yëpp jot na ko liggéey et il travaille sur l'œuvre de Léonard de Vinci que tout non il, il travaille non il il ah, tu sais que y' a y' a un mystère ci la la Joconde. ah bah oui Joconde kay <laughs> li ma koy waxal yëpp sax xam naa ni moom jaaxal na. donc donc nit la boo xamante ni il a découvert le mystère de la de la Joconde. ah ouais waaye. et Sénégal tey bi ah bah rien que pour ça. moi je pense que dafa jar nit ñi dem fa découvrir euh, ce ce ce génie que tout le monde devrait connaître. Euh, moi personnellement je suis en train de faire euh, un documentaire sur lui et moi je, je veux vraiment que nit ñi xam. nit euh, kooku c'est intéressant mais est-ce que amul lu ñu préparé. waaw am na lu mu ñu préparé et en même temps euh, donc da ngay du 17. waaw le 17 17 le moom la ñu réserver hip-hopeurs yi slameurs yi mooy la musique traditionnelle où il y aura du théâtre où il y aura les lutteurs qui vont exposer tout et tout en, en tout cas lépp lu ñu war a def def. des nag après ethnie yi ku ci nekk défilé donc pour euh, agrémenter euh, hmm. la la nuit et montrer à la traditionnel c'est quoi c'est euh, sabar c'est xalam c'est xam nga y a une cantatrice dans le temps bu bu tudd woon Ajaratu Mbana Diop hmm. kooku ku xam ku xam musique musique sénégalaise xam nga ko donc kooku dafa am ñoo xamante ni dañ ko doon boo demee tey yaa a une un ensemble lyrique traditionnel boo xamante ni Marema Mbaye hmm. waalo ñëpp ko xam kooku wàllu wàllu wàllu waalo moom moo koy wane euh, naar yi dañu am seen troupe boo xamante ni tu mm-hmm. connais la musique de loolu dañ koy wane boo ñëwee ci pël yi bambado yi boo ne xalam loolu lay indi huddub donc alors ça je vous présente Mélanie Lisa parce que sànq yaa ngi doon wax ci Mona Lisa ah, c'est un artiste ghanéen qui a fait ça et c'est juste magnifique je trouve oh il s'appelle El euh, El euh, il fait de très belles choses je pense que moo daax oh, moi j'adore ça ah, ah après on va essayer de découvrir Mystère indi. j'espère que moom découvrir le mystère bi. j'espère en tout cas il s'est inspiré du célèbre tableau de Leonardo da Vinci. d'accord la Joconde pour defar ko c'est magnifique. je tenais à partager ça avec vous. moi j'adore merci merci. donc voilà euh, euh, mmh. Paris Ouaga voilà Paris Ouaga Dakar. Mmh. bi nga ne moom ak Kantala mmh. Prévost. Prévost Dominique Prévost ñoom ñoo ko waaw <laughs> donc def bijou voilà Paris Ouaga Dakar et je pense qu'il est venu avec sa guitare Moustapha c'est super waaw ouais, ce serait euh, et euh, pochette album pourquoi il kii euh, waaw xam nga peut-être moom da nga koy xool rek xam xam xam li muy wax. waaw xam nga aujourd'hui boo boo gisee pollution bi am les gens ne tiennent pas trop compte de l'environnement. Mm, mm. lool lool loolu lay loolu lay loolu lay woote. y a marqué 2020. 2020 parce que album bi là tu as l'exclusivité. Mm, voilà oh voilà mais l'album n'est pas encore sorti l'album sort le 16 janvier à la Boule Noire à Paris. donc daal moi je fais partie des premières personnes. où je suis la première personne. À la voir. qui est la première personne. À la voir. <laughs> J'ai plus me sentir. <laughs> Toute la journée boulot laa nana nekkee tey merci beaucoup Moussa pour honneur bi léegi j'aimerais bien que balaa ngay dem nga may ñu benn son na ndaw. mais Yoro Ndiaye moo fi waroon ñëw moo waroon. moo waroon ñëw waaw Yoro daf ñu pommé garaawul. mais nee na nee na mënul yeewu fajar. <laughs> il a du mal mënul yeewu fajar ma ne bon on va on de gérer loo ñu may loo ñu may. non man man man. man Mado laay du <laughs> ko bandam. Mado laay jël tey Gidelam. Gidelam wallaay. bon j'espère qu'on on a. on a du son. Uh-huh. toog. sëñ yogi delam hay yogi hay yogi delam yo min mi de magido hay yogi hay yogi delam hay yogi delam yo min Come on. Wow, wow, come on. Whoa, whoa, whoa, ku la xool ci man mere la ku ma xool ci yow mere ma ku la xool ci man mere la ku ma xool ci yow mere ma dama la bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg naa la lool xaw ma di lu mu doon jarabiñ yow amore kamoor waawa kamoor ma daw waawa ma darling I need you ku la xool ci man mere naa ku ma xool ci yow mere ma xaw ma yaa bëgg bëgg bëgg bëgg man ma di man lu mu doon you are my man you are my side you are my world I need you in my life njarabi yoo moi je t'aime yoo amore ya Rabbi yo amore ya Rabbi yo te quiero amore Rabbi yo maro come on amore ya Rabbi yo bala ngay xam ni wàllu moo neex nga dem ba jàgg naa ngir ma fa sama gaaña hen yu naareen amore mbay mbooj tebe jaara binjo ak kaw jaar amore mami jaara binjo ayo jiide lam déclaration d'amour en direct ngay am foofu après on va derrière le dossier <laughs> ndeysaan min ɓuri ah, ma yidde madoo laak nga ko de ah ben way bi dafa neex te yeddi ma mooy ah dama la bëgg man ak mbirum chéréeg yooyu te nee nañ teranga teranga koy fay non du mer du mer mm. Nafa bu ñu tuur la nam déclaration d'amour direct nga def ak Mado. parce que Mado rek daf yooyee nag. bind leen bind leen. nee na ko bandum. bind leen bind leen bind leen filmé leen. Nafa def na Mado déclaration. waaw ñambas a compris quoi ah nest ba mu sotti. en tout cas c'est c'est magnifique merci beaucoup xam naa ni rendez-vous festival bi les 17 e 19 août. incha allah fële yooyu ñun moom il faut ñu dem man ak Aïssatou parce que am na secret boo xamante ne bëgg nañ ko découvrir on termine très rapidement Yeewu Culture bi Aïssatou voilà donc euh... je devais parler du livre de Cheikh Tal Dioum mm-hmm. ah dafa bind benn téere génne ko bu yàggul tuuti mm-hmm. mu tuddee ko la danse du cerf-volant mais je pense que on va en reparler prochainement mm-hmm. mardi prochain incha allah ñu gën si waxtaan ñu xuus si fekk ma jox la ko yow it nga am si benn aperçu mais boo ma ko joxee du ma la ko delloo ah non non boobu nag. waaw Aïssatou ay xam nga xam nga Tafa dafa jël album bi. j'ai donné plein de livres jox ma. non c'est pas pour rendre c'est pour nous. quand tu donnes tu non non je donne juste pour qu'elle lise pour qu'elle s'en imprègne. dina la neex yow bu ñu toogee di waxtaan ku ne mën si wax. waaw waaw donc je vais m'en imprégner après je te la <laughs> dégg wala wala wala booy lire damay toog ak yow rek ba nga pare delloo loolu dañ koy mujjee bàyyi mais mais agenda culturel bi lan lan. voilà on va juste parler de film. ah avec euh, Yao. Mhm. buy amaat institut français pour ñu ko seetaanu bool. c'est quand ce sera mercredi. Mhm. demain inchallah et avec Mati Diop. Mati Diop euh, donc il y aura quelques séances yoo xamante ne dinañu ko may. à mhm. partir du 2 août. Mhm. donc la première ce sera au Grand Théâtre incha allah donc ñi bëgg seetaan il y a des invitations et tout comme ça ñu jox leen ñu dem. seetaan on ira on ira incha allah merci beaucoup à toi. non je suis pas partie j'ai raté. ñu ngi waxtaanaat man daa ñaar ñi dama leen sama mbokk xamul tax amul tax ñu waxtaan. maanaam ñu seen ay y a pas les caméras yéen moom moo leen. baax na en tout cas merci beaucoup Tafa d'être passé sur ce plateau nous voir on sera au festival inchallah ak surtout merci agenda culturel bi on ira ensemble pour voir le film. ok euh, Sophie